tuuti quoi voilà waaw Ibrahima ñu ngi la fekk ci sa place waaw yow yaay coiffé fii nga wax lu extraordinaire ci Sénégal ak situation bi fi mu toll euh, dama yaakaaroon ne yow wat rek nga man wala wat rek ngay def ñu seetaan émission yi nga am loo ci wax sa xalaat sama yaram daw ma génn sama caméra pour interviewer la laaj la lan la ñu mën a def pour alors euh, Sénégal euh, Sénégal mën a génne si situation yi moo xamante ne ni nekk na ko tey am nga loo ma si wax ma ne am na la ma lu ma la si wax jàngat ba ñu dugg si wax waxu Xadafi looy wax fi mu nekk nii. waaw man mu mën a wax en tant que sénégalais en tant que africain mooy que damay njëkkee ci suma réew ba pare Sénégal nag lenn moom aussi moom moo fi ne. mooy que ñu bëggee xëy na réew mi dem wala réew mi avancé euh, dafa am ay valeurs yoo xamante ni il fallait ñu delloo ñu delloo si waat ko delloo si waat bi nag lenn la rek mooy que li nga xamante ne nii xëy na moom lañ fi fekkoon moom la fi suñu mag ñi baax ñi fekkoon bàyyi woon ñu mel ni ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ñu mel ni ñoom Cheikh Ibrahim Niass ñu mel ni ñoom Seydi Hadji Malick ñoom Maam Limaamu Laay ñoom Cheikh Omar Foutiyou ak ñeneen ak ñeneen

xam nga ñoo ay philosophe yoo xamante ne nii kenn comprendre wul fi ñu jëlee tibbeewuñ ci alxuraan tibbeewuñ fenn nga ñëw ne da ngay jël ñooñu imposer leen di leen jël di jël exemple ñooñu bàyyi suñu mag ñu baax ñooñu pour nga diriger leen askan boo xam ne 98 pour cent dafa am réalité ñu jëm kooku du dem euh, yaakaar naa ne mun nañ ci citer ay exemple mooy amoon nañ président boo xamante ne nii tey euh, li ñuy wax la rek defoon na fi loo xamante ne nii tey méngoowut ak ñun li ñuy li ñuy dund mooy président boo xam ne sax am na fi monument jëru na fi coow lu bari ah kiitu yu ñëwaat tamit gis nañ fi am na loo xamante ni wax na ko loo xam ne jur na coow donte sax xëy na luñ ci jublu mais dégg-dégg yi ute nañ parce que boo nee sëriñ si ay simple citoyen lañ aussi bon dégg-dégg yi dafay xaw a ute te yaakaar naa ne même bu ci jubluwul bu ci jubluwul sax loo xam ne nii lu garaaw la mais dégg-dégg yi dañu ute mais jur na impact jur na coow loo xamante ne wax jooju noonu aussi méngoowut ak réalité yi nga xam ne moom la ñu dund parce que réew la boo xam ne euh, réewum ndongo daara la te dañoo am lu ñu gëm réalité yu ñu gëm bon sur ce point là côté boobu laa bëggoon waxee ci Sénégal ñu xam ne bu ñu ko buggee suñ ko bëggee développé moom fallait tamit ñu jël réalité yi nga xamante ne nii xëy na moom lañ fi bàyyi woon que loolu moom moo ñu mën parce que ñun loolu lañ xam loolu lañ léegi euh, Ibrahima gannaaw bi ñu waxtaanee alors euh, ñu dugg ci euh, ci ki nga xamante ne mooy Xadafi waaw nga am loo ma si wax foofu laa bëgg nga ñëwalaatal ma Xadafi. waaw Mouhamed Xadafi moom lu ma mën a wax ci moom. moy que dafa nekkoon nit koo xamante ni il était un révolutionnaire ça veut dire que euh, bon panafricanisme moom loolu moo nekkoon xeexam mooy Afrique doon benn xarafi dafa nekkoon koo xam ne nii lu mu mun a seede ci wax ci moom aussi ñu xam ko mooy que euh, nit la woon koo xamante ne ni tey li mu doon xeex bu sotti woon tey du arrangé tey pays occident yi ba tax xëy na ñoom seen seen pexe ak seen lépp mooy fexe ni ñu fi jëlee woon président yi nga xamante ni xëy na seen combat mooy Afrique doon benn xarafi nag daf ci bokkoon ci ñi nga xamante ni seen xeex ak seen combat moy Afrique doon ben moy nit ku ñuul siggi moy que lepp lo xamante ni li ñuy def moy xam ci walu commerce mo xam ci walu dugulante génn Afrique mun ci gis bopam li waji ji dox naan euh, africain africain ci bopam mun na xam ne moom ci bopam développement bi war ci mom moom ci bopam da koy commencé lool nak moom doon la or que nak pays occident yi ñom loolu arrangé wu len parce que ñom seen xex moy que ne lepp lu ñuy développé ci Afrique lañ koy tibbee di ko yóbbu. kon Yaya Jammeh lo wax ci mom bon Yaya c'est quelqu'un ko xam aussi. Euh, am na ay réalités yu mu gëm yoo xam ne nii euh, gëmloo loolu ko waa dëkkam waaw ah, bien vrai que nag euh, ñu bëri ñu ngi wax ne dëkkam démocratie amu fa yaayaa dictature la yaayaa nang lu ne ñu ngi koy wax mais en tout cas ce qui est mooy que ne peuple bu nekk njiit ba koy diriger moom mooy xool li peuple bi laaj mu diriger ko noonu te yaakaar naa yaa ni muy diriger dëkkam xëy na noonu la dëkkam laaj moo tax mu di ko diriger waaye nag donte moom mi ngi mi ngi diriger noonu mais amna ci réalité yo xamné ne nii xëy ci ànd mom moom amna yo xamné duma ci ànd mom comme exemple tamit lu mu dégg je ne sais pas si c'est vrai ou bien mais dégg naa fi ñu ne après julli gi julli korité bi teg na fi lu mat presque ay imam yu bari plus de 300 yu démé non xaw ma ndax dëgg la am du dëgg mais en tout cas ce qui est sûr que mooy wàllu religion moom euh, li waa ji di wax ne ku ci nekk ak gis-gis yoo ko wutee parce que dañuy wax ne wutee borom xam-xam yi yërmande la ci jullit yi kon kenn ku ci nekk rek bon nañu xam ne kër am na lu koo xamante ni yàlla noonu la ko may mu di ko dundee ku ci nekk na ko bàyyi mu libre choisir li muy dundee diine mu dundee ko diine mais kantaa nag ku ci nekk ni ko yëgee euh, du moom noonu la koy gisee ba mu tax mu jàpp ay ñu demee noonu leen côté boobu Chine Chine su wàllu drogue bi nga xamante ne nii alors euh, doon nañ ko dund seen réew mm-hmm. am na loo ci wax sànq bi ñu reyee ba ñaata bon Chine euh, ci histoire dañu dañu bi ñuy xeex wàllu drogue xeex nañ ko ci anam yu nekk mu métti trop que c'était boo xamante ni dañoo drogué woon peuple boo xam ne bon drogue bi dafay dafa amoon impact bu am doole euh, bi ñu demee nag ba xam ne lii bu yàggee cinq réew mi lay mujjee euh, sànq askan bi lay mujjee ñu ne kon nañ voté benn loi boo xamante ne nii bon ñu pénaliser ko ba nga xam ne nii képp koo xamante ne nii jàpp nañ la ci wàllu drogue moo xam ngay drogue wala nga koy def dañ lay rey biñ défé defee loolu voté loi bi bi ci commencé ray plus de 1000 et quelques personnes yo xamé ne ni fat nañ leen ah si lañ ñoom ñëpp ñu commencé nak né ah gannaaw lii ñu koy def suñu bakkan di ñu si fekk nak bon nañ ko arrêté. parce que yaakaar naa ne aussi loi boo koy jël da koy dem jusqu'au bout te foofu noonu ñu ko jëloon tey rëccuwuñ parce que ils font partie tey pays yi gën a développé ci àdduna bi mun naa lay wax ne sax chinois yi instant bi ñëw ñoom ñoo ñoo ëpp doole ci àdduna bi tey te lan moo la ko waral mooy par exemple seen respecte loi. seen i seen euh, seen discipline seen loo xamante ni tey bu ñu ko fote ñoom ñëpp dañ ciy ànd te loolu noonu tey yaakaar naa ne moom exemple la tey ci dëkk yi yëpp ñu jël exemple ci Chine respecté loi yi xool li nga xamante ni moom mooy développé suñu réew yi aussi ñu ñu ñu wax ci ñu jàpp ci ba mun a développé comme Chine. loo may wax si ay Corée. Corée Corée Corée Corée bon Corée moom histoire am histoire am moom.

mënuñu ko am étant un musulman qu'est-ce que ça te fait lan la def. bon développement aajuwul ci ci religion ci musulman ci dara développement ci être humain. discipline bi la wax. bon discipline bi moy li ñuy wax la rek. Euh, discipline bi mom lolu ci éducation la éducation bi mom li ñuy wax rek l'islam euh, mom dafa dafa dafa dafa dafa jeexal lépp l'islam mom moy yar l'islam bi ñuy wax éduca éducateur bi ëpp doole moy l'islam léegi nag ñoom ñooñu tey nga gis ni tey discipline nañ ba mu ne yegg fu ñu yegg tey ñoom sax mun naa ne tey dañuy dañuy inspiré wu ci l'islam tey di ànd ak ñoom ci loolu ba discipline boobu ci lañ mën a amee lu ñu am parce que développement ñu munti am yëpp l'islam na ñun ñun étant ñun musulman est-ce que du ñoo war a xoolaat suñu bopp xool li nga xamante ni par exemple tey moom la ñu fi bàyyee tey discipline boobu ñoonu ñu jëm ci ànd parce que tey ñun loolu instant bi moo ñu def parce que da am sa doom tey war koo dugal alxuraan war koo mun a yar ci l'islam mu am am deux ans gërëm au lieu mu yóbbu ko ci daara ji gërëm yóbbu ko case des yi nga xamante ni moom la ko diineem sant du ko xam mais am na ñoo xamante ni tey nga xamante ni moom la l'islam war a def ci ñoom réalité yooyu nekku fa te bu ñuy wax l'islam nekkul mbubb bu ñuy sol mais ci comportement la ci loolu la xëy na nag li ñu gën a tardeel mun naa ne ñun jullit yi loolu la alhamdulilah Ibrahima da ngay ndaw loo xamante ne nii bàyyiwuloo sa bopp waaye nag balaa ma lay bàyyi dina am lu ndaw lu xamante ne ni dama la koy laajaat loolu mooy euh, réew yi nga fi cité ak fi ñu yegg ak fi ñu toll tey jii nii yow ndax da nga jàpp ne bu ñu yoree yar bi di dóor jote ko dina am. waa actuellement nag euh, li ñuy wax la rek euh, yar bi moom il fallait que yar bi ñëw même bu ñu dóorul sax yar bi na fa nekk parce que tey dañu wax ne xale boo ko buggee yar muy jooy wala muy def loo xamante ne nii moom àndut ak par exemple ni nga bëgg mu def. Euh, boo ko dóoru sax fàqal yar teg ko ci wetam boo ko fàqee yar teg ko ci wetam rek xamul yàlla mais xam na yar bu xoolee yar bi rek mun na ragal ba jooy yi mu doon def mun na ko arrêté bon suñu bëggee éduquer nag en tant que nag fu mu toll nii pour mën a avancer mooy que il faut que par exemple